alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala nabiyina muhammadin min nasli haashimin fa naqluhu min taahirina wa taahiraat hatantaha li taahirina wa taahiraat wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi di ànd ak ñun ci seen télévision MTV Sénégal rawatina seen émission bii di teggin ñu leen di jaajëfal bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ñi ngi jaajëfal ñi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon semaine passée eh, di ñaan yàlla mu defal leen càmm defal leen sutura di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu gën ñoo jëriñ ci ànd bi tey nag eh, dañu bëgg a waxtaanee rôle lu jigéen ci société. dawrul maraad fi irshaadul mujtama aw fi tarbiyatul nasli aw fi tarbiyatul awlaad ñu war a dalal kenn koo xam ne dañ koy bàyyi mu nuyoo bu nuyoo incha allahu rabbi dina leen wax moom mooy kan eh, Seyda asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu Oustaz Saïd maa lay fay ci nuyoo bi eh, di la remercier ci invitation bi. di wax sénégalais yi ak ñëpp ñuy seetaan télé bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Euh, Seyda yow def naa jàngalekat nga. Euh, fan ngay jàngale. maa ngi jàngale ci benn école privée bu ñuy wax CUIM collège université islamique bu nekk ci deux voies liberté six euh, di liggéey feneen ci média aussi. waaw maa ngi ci rajo Dunia ci RTV bi incha allah. Mhm. Euh, ñi ngi leen koy wax ne kii mooy Seyda Adama Kane euh, incha allahu rabbi di ñaan yàlla sunu borom mu gën koo sàmm gën koo jàppale ci liggéey bi ndax liggéey bi muy def am na solo trop euh, en tant que jigéen Seyda ñu laaj la léegi balaa ñuy dugg ci roolu jigéen kan mooy jigéen kan mooy jigéen jërëjëf oustaz yi xanaa dollu ci présentation bi rek ne te ubbi daara ju bees ju tudd El Hadj Mouhamadul Amin kan tuddee ko sama papa muy daara internat boo xam ne ay jigéen lay jàngal incha allah. Mm-hmm, mm-hmm. am solo waaw question bi am na solo. jigéen mooy jaamu yàlla jigéen jaamu yàlla la bu yàlla bind wàccee ko ci suuf ngir mu remplacer ko ci kaw suuf comme ni mu ko waxee ci alquran euh, wa ma xalaqul jënd wal insa illa liya'budun ba pare mu ne dama wàccee nit ci kaw suuf inni jaayilun fil ardi xalifa dama wàccee doomu aadama ci suuf ngir ñu remplacer ma fi maanaam def fi li ma bëgg taxawal suuf dundal suuf wastamarakum fiha kon jigéen mooy ki nga xam ne dañ ko bind daal wàccee ko ci kaw suuf ngir mu remplacer yàlla ci kaw suuf def ci kaw suuf li yàlla bëgg taxawal yàlla ci kaw suuf jaamu yàlla ci façon jaamu yàlla yi nga xam ne moom la ko yàlla sant bi mu bokk ak góor bi nga xam ne moom kese la ko yàlla dénk wala li ci ëpp solo moom la ko yàlla dénk kooku mooy jigéen mooy jaamu yàlla boobu euh, jigéen euh, responsabilité la euh, ni mu responsabilité góor moom yàlla sunu borom subhaanahu wa noonu la joxe responsabilité jigéen ndax dafa ne inni fi fil ardi xalifa te xalifa boobu mooy aadama ak xawaa ak li ñu jur Euh, kon loolu dafay wane rek seen euh, rôle bi nga xam ne war nañ ko jouer léegi important su jigéen ci dund gi nan nga ñuy mun a waxee loolu loo ñu koy mën a expliquer mu gën a jege ñu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan dëgg la importance su jigéen euh, oustaz Sanghib ci kaw suuf mooy comme ni ma ko njëkk waxee maanaam jigéen yàlla daf koo wàcce ci kaw suuf ngir mu dundal suuf ngir mu jaamu yàlla ci kaw suuf jaamu yàlla nag ci kaw suuf dafa ëmb ñaar ndax doomu aadama bi jaamu yàlla dafa am yi ko composé maanaam yoo xam ne du benn mbir parce que doomu aadama nit la te nit dafa am yaram yaram bi am lu mu laaj mu am xel xel mi am lu mu laaj mu am tam xol xol bi am lu mu laaj mais mu am ruux ruux bi tam am lu mu laaj maanaam yooyu yëpp bu ci nekk dafa am lu mu laaj lu koy dundal mais bu ñu ko tënkee rek bu ko gàttal da nga naan daal nit yaram la ak ruux parce que ci dese mun na cee dugg yaram bi lekk ak naan moo koy dundal ak yëngatu ruux bi li koy dundal mooy jaamu borom bi subhaanahu wa la léegi ñaar yooyu nag góor ak jigéen ñoom ñoo ci yem te lépp loo xam ne yàlla sant na ko góor ci mbiru jaamu yàlla sant na ko jigéen lu dut li nga xam ne ay texte ñoo ñëw ne lii góor kese moo ko jagoo ak texte yoo xam ne dafa ñëw ne lii jigéen kese moom moo ko jagoo bu dul loolu li ëpp solo ci liggéeyu jigéen maanaam ci ci rolu jigéen ci kaw suuf mooy jaamu yàlla jaamu yàlla googu nag dafa yaatu dafa am ibaada sa'iriya boo xam ne moo góor ñoo ko bokk mu am tam ibaada taamuliya boo xam ne euh, ba léegi moom góor ñoo ko bokk mais ibaada taamuliya boobu nag moom da cee am cër bu rëy boo xam ne bi daanaka moom moom la yàlla jox cër bu gën a rëy boobu mm-hmm. mais cër bu rëy boobu bi ci ëpp solo wala nga ne sax cër boobu moom la ko yàlla jox muy defar doomu aadama muy defar nit maanaam préparer ay génération yu war a ñëw ëllëg ist maanaam istidaalu jiil al jiil boo xam ne bi moom mooy ñëw jigéen boobu tamit moom mooy saal lañ koy waxee maanaam nawaat mooy jiw mm-hmm. jiw bi nga xam ne moom la ñuy ji su ko defee mu meññ jiw bi bu baaxee mm-hmm. mun a meññ meññeef bu baax mm-hmm. moo tax jigéen jooju euh, ku ku lislaam teg fu fu kawe la moo tax euh, yeneen bi sallallahu alayhi di ñu wax ne ci importance su jigéen ndax jigéen moom mooy defar wax naa ko jigéen moom mooy defar société moom mooy yar moom mooy ki yàlla wóol ki yàlla wóol ci nit parce que euh, xam nga àddina yàlla daf koo bind def fi lépp loo xam ne dafay baaxal àddina mu bind doomu aadama mais lim bind yëpp doomu aadama la ko bindal pour mu servir doomu aadama mm-hmm. mu bind doomu aadama nag pour doomu aadama moom defaru pour ba mun a delluwaat fa nga xam ne foofu la jóge mm-hmm. léegi jigéen nag moom mooy saal bi mun nañ saal mooy jiwu bi mm-hmm. moo tax ndeysaan euh, boo xoolee ci suñu yaay xannatu di yaayu sayyidatuna Maryama euh, moom joxe na ci leçon bu rëy bu jar a bàyyi xel ci wone na jigéen niñ ko war a yaree ni parce que jigéen comme moom mooy yar di faut mu yaru comme moom mooy defar il faut mu defaru mhm. léegi moom bi mu ëmbee doomam xamagul góor la wala jigéen mais commencé na di ko yar ci biir ci biiram boobu sinagu ko mhm. di ko yar digganteem ak borom bi subhaanahu wa taala ba fa la ñaane ñaanam bu rëy boobu ne yàlla rabbi inni uizuha bika wa zurriyataha min asheytaani rajim am na yeneen aaya yu ko jiitu mhm. waaye man aaya bi moom moo ma ci gën a ñor mooy bi ne yàlla sama doom ji nekk sama biir maa ngi lay ñaan bu ganee àddina nga musal ko ci seytaane ba musalaale njabootam gi ñëwagul loolu da ngay gis ni taxawaay bu rëy la boo xam ne jigéen daf koy taxawu te ki jigéen war a defar xam nga euh, dañuy wax ne am na am na ko indi woon doomam nañ ko ko yaral fekk mu ngi toll ci tuut tànk ñu ne euh, foog naa Seydina Ali Abi Taalib la mu ne leen weesu na ñu ne mu am beneen doom indi ko ci teel ba muy nàmp mu ne ko weesu na mu ne ko ah kon kañ lañ koy yar mu ne ko ba nga koy tànnal yaay te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxoon nañu ko kon ndekki yaay dafa am solo ca bañ koy tànn bu ñu tànnee ki nga xam ne mooy ki ñu yonent bi tànnloo fas far bi zaati diini taribat yadaak hmm. boo tànnee pour pour maanaam pour jigéen mun a taxaw ci rolam hmm. dafay commencer fu sori tànn ca tànn bu ñuy tànn yaay ji bu ñu tànnee yaay ji yaay ji ñëw moom mu commencé yar njaboot ci ca ba muy ànd ak boroom këram ca ca ca lal ba hmm. ca ca ca ñaan ya ca teggin ya ca xam àqu jëkkëram ca xam nu muy doxalee yépp mu ngi ciy préparé doomam bu paree ci loolu ba doom yi nekk ci biir bi tam mu continuer commencé di ko yar ci biiram ci moom ay comportement wam ay ay ay diineem ak njàngam ak lépp ak li muy wax doomam di dégg li muy def muy dem ci doom ji loolu yépp mu nekk loo xam ne ne yar la boo xam ne ki ngay génn génnagul mm-hmm. bés bu ne pët ci àddina ne asalaamaaleykum àddina yaay ji li muy njëkk a def nga xam ne kenn waru ko ci jiitu mm-hmm. mooy liqaam ci nopp ndeyjoor bi nodd ci nopp ndeyjoor bi liqaam ci càmmoñ bi ba pare nag jox ko weenam continuer ak yar bi kon mun nañ ne jigéen li tax yàlla indi ko ci àddina ginnaaw lim bokk ak góor muy ñoom ñëpp ñu ànd jaamu yàlla ak beneen jaamu yàlla boo xam ne moom lañ ko jagleel muy defar doomu aadama yar doomu aadama waaye nag dañ ne kuy defar foog nga defar faaxi du shay yi laa yu uti yi jigéen comme moo war a defare il foog mu defaru moo tax yéen sallallahu alayhi wasallam joxe ci nag kaddu boo xam ne benn kado féetewu ko kaw ci defar jigéen hmm. mu ne képp ku am doom bu jigéen wala rakk bu jigéen wala jarbaat wala sœur mais jigéen la nga yar ko éduquer ko orienté ko jàngal ko diine ba mu mat lañ ko doon doyee kersa gaag diine jaag lépp mat nga xam ne moom kër gu mu dugg kër googu am nañu mhm. sens mhm. yeneen sa alayhi wa sallam nee na dinañ la fay lu rëy lu lay fay mooy aljanna mhm. nee na loolu moom mooy sa njot ci aljanna kon loolu lenn la ci wone importance su jigéen ci kaw suuf yeneen sallallahu alayhi wa sallam wax na tamit ci jigéen lu gën a rëy sax loolu nee na adduna bi ba mu daj adduna bi yépp a na marchandise la nee na addunia mataa hmm. wa xayru mataaha al maratu saaliha hmm. ndek al maratul xayru saaliha bi boobu moom musiba la ci yàlla musal hmm. mais daf ne àdduna ba mu daj li fi nekk ci alal ci trésor ci lépp lu fi nekk ci àddina li ko gën mooy benn jigéen bu baax ndax jigéen boobu bu baaxee day baaxalaat waaye jigéen boobu bu bonee boo amoon àddina ak li ci biiram te am jigéen jëmoon ci sa biir kër nañ ci yàlla musal mhm. sa dara du dox sa dara du baax yàlla na ci yàlla musal wax nga ñu jigéen euh, yàlla moo ko jox responsabilité bi mu jox góor walbatiku beral ko beneen responsabilité dal di koy cëral wax nga ne sunu borom subhaanahu wa taala euh, góor munoon na def muy ëmb waaye dafa jël kilifteef googu responsabilité boobu daal di koy jox jigéen kon dañ naan jigéen moo ko ci doy wax nga ñu ne noonu mu nekkee euh, jiwu ndax al baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi ni rabbi mooy ne boo bëggee njaboot gu baax da tànn soxna su baax ngir mun la jëral njaboot gu baax wax nga ñu ne jigéen responsabilité bi moom dafa rëy euh, du toog ba doomam juddu mu naan da koy jéem a yar waaye da koy yar lu jiitu euh, doomam di juddu ndax xam nañ ne eh, eh, yaayu Mariam nga xam ne wuy juróom dañ ko dañ ko nekkoon koo xam ne dañ ko tàggatoon waajal ko mook boroom këram ba ñu nisaroon bu ñu amee doom ju góor ñu jël ko yóbbul ko jox ko diine mm-hmm. kon bu wax rek ne eh, importance bi nga xam ne ñoom xamoon nañ doom ju baax njëriñ ji mu am nga wax ñu itam ne am doom ju jigéen yar ko niñ ko war yare njaaloowul kersa jom diine ragal yàlla ba mu dem ci néegu sëyam yow góor googu yow dugg nga aljanna nga wax ñu itam ne loolu du góor moo ko am waaye jigéen kese kese kese la ko sunu borom subhaanahu wa taala jox xaqiqatan euh, tànneef est-ce que jafewul ci jigéen ci jigéenu léegi balaa ñuy dugg ci yar parce que wax nga kersa est-ce que jigéen léegi am nañ kersa wax nga teggin est-ce que am nañ ko wax nga gàtt tànk est-ce que am nañ ko est tànnin dina yomb jamono bii ñu nekk yaa Seyda wallaay euh, tànnin du yomb wax nga lu am solo wax tamit lu lu dëggu jamono bii ñuy dund tànn soxna si nga xam ne moom ngay am yaakaar mu jural la njaboot defar ko jafe na ndaxte jigéen ñi gën a bari ci jamono mooy ay yaay yoo xam ne ñoom daal jàpp nañ ne nekk yaay mu ngi yem ci ëmb jur dañuy ëmb jur bàyyi ci mbedd mi am na ci ñoo xam ne dañuy ëmb jur bàyyi nekk ci avion yi am xaalis nag nekk ci avion yi di voyager di toppatoo seeni mbir waaye seen njaboot bokkul ci seen programme loolu bëri na gis nañ ko du jeex mais am na sa biir ñeneen ñoo xam ne dañu jàpp ne nekk yaay daal mu ngi yem ci boo amee sa doom nga nga nga commencé di ko jox wenn heure période bi nga koy jox wenn tout yaa ngi koy yaa koy jàngal. Hmm. yaa ngi koy joxaale say jikko. Hmm. yaa ngi koy joxaale say say say say say aada. Hmm. maa ngi ciy fàttali ko benn jigéen ju baax ju ñuy wax Umu Suleymu di yaayu Anas ba muy nàmpal Anas dafa doon wax ni Anas laa ilaha illa allah jamono jamono boobu ñu ngi yéen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaayu Anas borom këram yéefér la moom yàlla baaxe ko mu tuub dugg ci lislaam yor doomam ju ndaw ñu ne dafa doon wax Anas waxal laa ilaha illa allah Anas waxal amul kenn ku ñuy jaamu sudul yàlla mooy li nga xam ne moom ngay tuflu ci sa nopp doom bu bu juddoo maanaam noddu bi ba jëkkër ji naan ko bul yàq sama doom comme yow dangaa génn génn say diine maam sama doom yi moom bu ko yàq waaye boobu moom dafay defar doom ji te foog naa fu ñu waxee anas bun malik di xaaduma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne eskay anas moom moo moom la yaayam jël yóbbu ko ci daara yenente bi ci kër yenente bi sallallahu alayhi wa sallam boobu mu ngi nekk xale bu ndaw ñu ne mu daal di koy indi ne ko yow muhammad yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam haza unays kii anas bu ndaw la indil naa la ko pour nga koy yónni ñaanalal ma ko ñaanal ko yaay ju yaay day am yaay yaay ju am yaay ju farlu yaay ju am himma uluwul himmati maanaam ah voilà umul uluwul ambition la mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kii anas bu ndaw la dama la koo indil pour lépp loo soxla loo xam ne mën nga ko koo yónni nga yónni ko ko waaye ñaanalal ma sama doom ji <laughs> yonent bi daal di koy ñaanal ci saa si ne allahumma aksir ilmahu wa waladahu wa tawil umrahu hmm. yàlla xale bi yàlla na nga guddal fanam yàlla na nga bëril xam-xamam yàlla na nga bëril alalam yàlla na nga bëril njabootam mu teg ci anas balaa gaañu am na ci sët ñu toll ci téeméer nee nañu dund na lu ëpp téeméeri at ab am xam-xam am alal nekk koo xam ne ki bokk na ci ñi nga xam ne dañ leena a euh, bégale aljanna hmm. kon loolu yaayam la hmm. kon yaay maanaam rôlu jigéen dafa am solo ci yar njaboot hmm. mais yaay ji nag dafa am yar bi parce que comme ni ñu koy waxee rek nit tamit mënul baax ba maye lu ma amul tey comme ni question bi nga laajte woon bu ñu ci dellu siwaatee mhm. muy tànn tànn jigéen ju baax ci jamono ji jafe na mhm. xam nga yeneenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne dinañ tànn jigéen ñeent ñeent dina tax góor tànn jigéen waaw bi ci njëkk te moo ci gën a bari jigéen dinañ ko tànnee taar di nga gis jigéen ju rafet nga ne ah kii rafet na kii moom bëgg naa ko nga dox ba am ko di nga gis jigéen ju am alal nga ne ah ok moom su ma ko amee vraiment euh, coono wàcc na ma lu bëri moom duma ko laaj. Mhm. dina ma dimbale ci njaboot gi et nga takk ko ngir loolu. dinga gis jigéen joo xam ne dafa am askan. doomu ku baax la doomu kilifa la doomu kilifa diine la wala doomu kilifa aada la wala doomu président la nga ne kii moom ci famille bi mu bokk su ma ko takkee vraiment sama affaire dina baax nga takk ko waaye mu ne jigéen dinañ ko tànn ngir diineem ngir yaram ñeent yooyu la ñuy tànn jigéen mu ne man nag maa ngi leen di orienté fazfar bi zaati diini taribat yadaaka moo ne ko ngel la tànnal boroom diini boroom diine bi nag boo mu ne am mu am diine boole ci taar loolu dara génn koo am solo nga am borom diine mu boole ci alal am na solo nga am borom diine mu boole ci nekk doomu ku baax lépp day gën a baax waaye ay boo tànnee borom alal bu amul diini bés boo koy bés bu lay génnee këram di sànni say bagage du yàgg dara parce que amul diine ku amul diine amul jikko su amul jikko kenn mënut a dund ak moom fu fu fu jege la lay xaar parce que diine rek moom moom na defar nit ba mu am jikko boo tànnee borom taar maa ngi ci joxe benn xissa benn waay dafa amoon jabar jabar ji taxu ko woon sax ñaaw waaye mu am ñaan boo xam ne lu mu ñaan am mu ñaan yu ko yàlla ni ñaan yi ñetti ñaan yi daal loo ci ñaan mu may la jigéen ju ñu yarul ju ñu defarul jigéen ñi ne ko xam nga li ma bëgg jabar ji dama bëgg sa ñetti ñaan yi benn bi moom nga ñaanal ma ko ma dàq ci jigéenu àdduna bi mu ñaanal ko ko mu dàq ci jigéenu àdduna bi gën rafet peru jama ah ba mu gënee rafet peru jama mu xeeb jëkkëram ba mu xeebee jëkkër ji mu commencé di génn di dem ci yeneen i góor góor ñi di ñëw ci moom góor ñi di ko ràng mu mu accepté jëkkër ji mer mer rek ak fiiraange lépp topp ko rek mu daal ñaan beneen ñaan mu ne yàlla yàlla na ko soppi ba mu mel ni golo hmm. na gën a ñaaw golo ah ñaan bi nangu mu soppeeku gën a garaaw golo xale yi ne papa lii moom ko koo supporter suñu yaay mel ni golo am topp ci papa ji papa ji ne yàlla delloo ko ni meloon ñetti ñaan yëpp dem ci moom parce que jigéen bi lu yeewu kon pexe jigéen daal moom kenn du ko wóolu te na kay da uh-huh. kun azim c'est uh-huh. li ci jiitu wax nga ñu yarkat yi niñ doon yaree defal ñu benn jawla bu am solo nga ñëw ñun ci euh, yarkat dëggantaan teggin yi muy am ngir kat gaa ñi bu ñu bëggee tànn mu yomb wax ñu ñeent yi ñuy tànne muy diine ja muy alal muy askan muy taar nga wax ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo jëlee bi nga xam ne amul diine nee na dóor nga sa loxo ci ëkk kon est-ce que jamono jii ñu bari dóoruñu seen loxo ci ëkk ndax di nga gis ay kilifa yoo xam ne buñ la wonee ne ñii ñooy seeni ay soxna euh, sa loxo dafay dem gémmiñ ndax doo fa gis diine euh, li ngay xàmmee jigéen muy taaru lislaam muy muuraay taaru lislaam muy kersa taaru lislaam mooy sol lu jot taaru lislaam mooy sol lu yiw doo ko fa gis nga gis góor ñoo xam ne daanaka ci mbedd bi la ñuy lekk ci mbedd bi la ñuy yendu ngir lan soxna yoo xamante ni bi mel ñu ni ñu war a mel jigéen ñooñu lan nga leen di wax en tant que yarkat war a yar société bi en même temps jàngalekat war a yee doomu aadama yi ndax sunu borom subhaanahu wa taala dafa bëgg doomu aadama yi mu jàng mu yaru mu yeewu ba kenn du ko mën a nax te dina mët loo xamante ne bii moom lu ko doon doyee yaa Seyda. Euh, jërëjëf Oustaz Saïd damay danga may may rek bala maa yegg ci sa question boobu ma yeggali euh, li ma doon wax ci ñeenti jigéen ñooñu. ci borom taar beeg borom alal jeeg borom askan bi ma yeggali ko ci jigéen ji nga xam ne moom la ñu yenente bi tànnaloo mooy day dugg sax ci question bi nga laajte léegi xam nga yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga ko waxee dafa ne fas far bi zaati diini taribat yadaak taribat yadaak olof di ko firee boo tànnee borom diine dóoruloo sa loxo ci ëkk Oustaz Saïd euh, dóor sa loxo ci ëkk ëkk yaakaar naa mooy garab bu ñu dagg ba nga xam ne euh, kii ba moo fa nekk daal lu gàtt lu dëgër waa dàtt ba nga jékki-jékki sa loxo yëgoo ko rek ba mu dóor ci yaakaar naan méttit bi ngay am ci xol loolu kenn mënu la ko wax lu dut ku ko am lépp loo xam ne li yàlla waxoon na ko ci jigéen pour jigéen mun a dalal boroom këram ba yàlla di wax ci aaya bi wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma mawadda amu fa rahma amu fa sakkan amu fa léegi nag góor bu takkee jabar amu fa mawadda amu fa raxma amu fa sakan rawatina bi ëpp solo sax mooy sakkan bi hmm. ak raxma bi lan mooy sakkan sakkan mooy mu nekk mu nekk daluwaay nga mun a dal mu ban a boo sonnee boo ñëwee mun laa dalal comme ni ñu ko sëy suna xadi jëti jàngale hmm, xam nga ñun suñu maam yi ñu may nit koo xam ne bëggante wuñu sax mais comme yar baa nga fa woon teggin baa nga fa woon respecté waajur yaa nga fa woon ba pare yërmande bi daf fay nekk nit koo xam ne may nañ ko jëkkër joo xam ne xamu ko sax mais comme dafa dégg ndigal te dañ koo yar dafay dem même bu fekkee bugg ko du du sañe def jëkkëram lu ko métti parce que da koy parce que ñett yooyu nag la yàlla boole ci sëy ma wadda bëggante yërëmante ak sakkan bi nekk ñaar yooyu bu amee rek sakkan day am waaye benn bi sax mën naa ñàkk nag nit ko mën ngaa bañ a bëgg sa jabar mën nga ko bañ a nopp ci wax yi mën nga ko mën nga bañ a nopp sa jëkkër mais du tee nga am ragal yàlla bu toll nii doo ko lor di nga ko jox àkkam ba mu mat loolu moom sëy yu njëkk yëpp noonu la daan demee. kon raxma bi moom mooy wëlbatiku soppaliku nekk cofeel. après nag après raxma bi ne boobu day dem ba nekk cofeel xam nga ñun xam nga mag ñi dañ naan si jigéen du bëgg day miin. Mhm. bu fekkee ne ñëw na ànd ak yaram diine am diine. te moom mosul xam jëkkër ja ba koy nopp mhm. mais dina ko yërëm dina ko ragal dina ko yërëm parce que yërëmande bi da koy teg ci ragal yàlla mhm. dina ko ragal a lor dina ko ragal a dina ragal a jël àqam dina ragal jëkkëram soxla ci moom lu jëkkëram moom mu bañ su ko defee dina ko ragal a lor tamit yar yërëm boobu muy muy def ragal yàlla boobu ak yërmande boobu parce que nit ki boo ko yërëmee rek léegi nga bëgg ko. léegi nag kooku dafay fekk mu doon jëkkër joo xam ne am na jikko aussi parce que tam jigéen lu mu bëgg bëgg bëgg sëy lu mu bëgg bëgg bëgg yar soo amee jëkkër ju mel ni mu war a mel rek eh, kon nekk ak moom dafay jafe yar sa njaboot dafay jafe ndax am na góor ñoo xam ne ñooy tax jigéen ñu bëri du ñu mën a yar seen njaboot ñooñu lan ngay wax ak ñoom Seyda ñoo xam ne dañ jigéen ñi muuruwul ñu dem takk jigéen ji muuru ba mu sëyi këram ñu ne ko mu réer ko gisee damaa jommi yow yaa ngi gis jigéen ñu ñuul ñaa ngi fi takkoo leen nga takk hmm. jigéen yaa ngi gis jigéen ñu xees ñi di mais takkoo leen nga takk jigéen ji ñuul nga dem jëndal ko xeesal nga fekk jigéen ñi muuruwut nga bàyyi leen fi takkoo leen nga dem ca ka ñu yar ka ñu muur ba xamal ko li li ko war mu nekk ci nga takk ko yóbbu ko ba sa kër ne ko man nag damaa bëgg nga mureeku parce que boo mureekoo ci ngay rafet lu yàggu sama benn xarit mu ngi may wax mu ne ma sëy dafa tàggoo jëkkër bi sax mu ne ma sëy daal li ma tàqaleeg sama jëkkër mooy daf ne naa muree ko suy dem sax du ànd ak man parce que nee na bu fekkoon da nga doon tagalu kon fu may dem ñu ànd hmm, tagalu waaye sa muuru bi moo tax du ànd ak yow fenn tagalu bi vax lay doon wala ah. jasner wala cheveux naturel moom daal na teg dara daal ci bopp bi lu nuróo sóoru daal bàyyi sa yaram yi ci biti kooku nag yàlla baaxee na ko ba moom dafa muuru te jëkkër ji daf koo fekk mu ngi muuru waaye li pour dëggal li ngay wax rek di gis jigéen ju bëgg a defar mu mu am jëkkër joo xam ne dimbaliwu ko benn yoon pour mu defar hmm. moo taxoon tam gis nga ni ñuy tànnee jabar noonu la ñuy tànnee tamit jëkkër ndax ba yeneen ci wax sa alayhi wa sallam tànnal borom diini bu boobaa doo dóor sa loxo ci ëkk noonu la waxee tamit isa ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ard wa fasaad fitna boobu ak fasaad boobu moo am parce que newoon na bu fekkee ni góor ñëw na bëgg seen doom ngeen gis ne góor gi am na jikko am na diine am na ngor am na jom na ngeen ko may su ngeen ko deful nag fitna rek lay jur mooy fitna gi juddu rek maa ngi yàqute bu rëy a rëy maa ngi déglu sama benn sëriñ docteur Naboul si am naa koy suivre sama émission bi nga koy dégg ndax dama koy suivre mu ne dafa am benn waay benn papa boo xam ne doomam bu jigéen dafa am ku ñëw di ko bëgg soxna mu ne mu laaj waay yow est-ce que xam nga ki nga may sa doom du jullit chrétien la mu ne ko lan mu woo mu woo goro bi mu ne ko yow doo jullit mu ne ko laajoo ma loolu <laughs> laajoo ma ndax jullit laa man li nga ma laaj yëpp tontu naa la ci mais boobu laajoo ma ko may nga ma jabar sama jabar la <laughs> xam nga loolu mooy li bëri alal yi la ñuy laaj tekk yooyu mais kenn du xool diine moo tax nag yeneen bi sallallahu alayhi wa woon na lépp mooy bu fekkee ne jëkkër ñëw na ngeen gis ne am na diine am na ngor na ngeen ko may ni ni jigéen waree defaru noonu la góor waree defaru waaye nag defaru bu nekkoon benn kese kese nag nga xam ne kenn moo koy am. jigéen moom lañ amee moom euh, dina mën a defar kër gi. ci ndimbalu yàlla. waxtaan bi am na solo trop waaye waxtu wi nga xam ne moom lañ ñu jagleloon. Mm-hmm. daanaka jeex na ndax euh, importance su jigéen jigéen mooy àdduna. émission. du ci benn at. du ci ñaari at. waaye waxtaan woo xam ne la tàmbali la am waaye amul fay. Euh, lan ngay mujjee dénkaane. jigéen ñi baale boole waale ci góor gi ndax jigéen pour mu nekk à l'aise foofu moom tam jigéen ñoo góor ñoo xam ne itam ñoo leen di jàppale li may dénk jigéen ñi góor ñi mooy jàng suñu diini en tant que jullit moo xam góor nga moo xam jigéen nga ndax boo jàngul sa diine doo mën a nekk nit doo mën a def li la war mooy li xew ci àdduna bi ñu ëpp ci ñun jànguñu suñu diini dañuy dem rek ndeysaan moo tax ngay gis problème yi nga gis ay jullit di def ay mbir yoo xam ne ba pare nag di ko layal da leen di yërëm parce que da xam ne rek dañoo jàngul mm. li may wax daal mooy jigéen ñi góor ñi ñëpp nañu jàng suñu diine am nañu ay royukaay nag ku bàyyi sa royukaay nag comme ni ñu ko waxee ku bàyyi sa ànd ànd boo yëg dañ nga fa fekk borom mm. dañu am suñuy royukaay suñuy royukaay ci jigéen ñi mooy ñoom sayyidatuna Fatima bintu Rasul ñëpp gis nañ sëyam ak sayyidna Ali mm. Ali amul woon xaalis de miskin la woon ci côté alal nii mm-hmm. waaye ku ku ku bëri la woon la ci côté am ci côté xam-xam mm-hmm. ak jikko te loolu la ñuy tànnee moo tax seen kër dara génn ko woon neex te daanañu toog léeg-léeg sax duñu duñu duñu reer wala duñu ndékki du ñu añ loolu ñëw na ci alquran mm-hmm. ci suratul insaan ba ñu saraxee seen seen ñetti fanu ndogu ya ñuy fanaanee noonu wa yut'imuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ba pare tamit nga xool beneen royukaay bu mag bu ñuy wax umu salamata jigéen tam dafa war a taxaw ngir jàppale jëkkëram ci jamonoy yomb-yomb jamonoy bànneex rawatina ci jamonoy jafe-jafe parce que jigéen tam yàlla daf koo may xel mu rëy waaye góor tamit na ragal yàlla parce que yeneen sallallahu alayhi wala Umar bun Abdul am na ku ko laajoon ne ko sama doom bu jigéen bi kan laa koy may mm-hmm. mu ne ko may ko ko ragal yàlla bu ko bëggee dina ko teral bu ko bañee du ko lor mooy li ma waxoon sànq rek ci jigéen tamit mm-hmm. ragal yàlla daal bu jiitoo te ragal yàlla mënta am te jànguñu suñu diine wattaqullaha wa yuallimukumullah la ragal yàlla daal mooy lépp jàng suñu diine mooy lépp bu ñu ko defee sëy yi dina tegewaat ci yoon yar gi tegewaat ci yoon yar gi échec na ba fu échec yem te dara warula ko lu dul ndeysaan jàngu suñu diine ñun suñu yaay yi ñun ñii ak suñu maam yi hmm. wax dëgg yàlla li ñu def ci ñun ñun defuñu ko ci suñu suñu doom yi suñu njaboot gi hmm. parce que ñu ngi tal àddina rek di daw rek di wuti alal hmm. te mën nga wut alal du tey nga yar sa njaboot jàngal sa njaboot jàngal leen diine kon daal fi may tëjee mooy góor ak jigéen dañ xam ne yàlla moo ñu wàccee ci kaw suuf pour ñu jaamu ko mu am yoon bu ñu tëralal ñu war cee jaar bu ñu ci jaaree nag ñu am texe àddina am texe àllaaxira buñ ci jaarul du ñu am texe àddina duñ ko am àllaaxira te du tee dee gaa ngi nii ñëw ñëpp xam nañu ku nekk day dee te ku dee ba pare di nga rëccu li nga doon nekkee ci àddina su fekkee ni nga fi nekkee woon bokk na ci ñàkk xam sa diine te ko xamul sa diine doo ko jëfee kon yàlla dafa ne qu anfusakum wa ahlikum naaran musal leen seen njaboot ci safara ak seen bopp loolu nag jëkkër ja la ko njëkkee boroom kër gi dafa war a toppatoo jabaram même boo amee jabar bu jàngul yaa ko war a toppatoo ba mu jàng diinam xamu ko bu fekkee ne dimbale nga ko ci loolu nga dimbale tam njabootam boo dimbalee sa jabar rek dimbale nga sa njaboot kon ñu yemale foofu incha allah kàddu gi di leen gërëmaat di leen sant di ñaan lépp luñ fi wax mu nee mu bëri yàlla nañ ko jëriñoo di nuyu ñëpp di jaar ñëpp di ñëpp jàmm yàlla na yàlla defal tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu